pour Rambi, Je fais partie de Benobok Un manifestant et qui se réclame en fait de Benno Bok parce que Mungi Sol, Ben Lacoste, Benno Bok le sol. Et il, il, se dit faire partir de la coalition Benno Bok Donc nous avons manifester contre la cherté euh, donc, de l'électricité. Ça ne va pas passer waaye conseil dise tous eh du fi yama ah, du ci yam yam ça va chauffer encore nous ñu yam on a aussi nos camarades vous ñu leen bàyyee il y aura toujours d'autres d'or qui vont mm. continuer le combat ouais nous ñu fi yam courant bi cher courant bi dafa cher. tous courant bi cher. voilà cher cher. cher. cher mais ils souffrent aussi comme nous. ko rafetlu quoi parce que tamit ñu ay sénégalais mhm. sénégalais mais tamit autorité bi amna fo xamné fa ak mom dalay won bopam mhm. autorité bi bu féké ko mhm. courant cher c'est vrai. mais tamit sénégalais ñun nañ xolaat suñu bop quoi bari nañ biru trop aduna du hôtel fii da ngay dund ba kéro ngay dé da ngay sonu fii du hôtel ñi di wax ñi ño fi jëlé won Ablaye Wade ah. groupe bi nekk ni ño fi jëlé won Ablaye Wade tek fi Macky Sall ñoom ñoo wat ak Macky Sall bu ko fi jëlé du affaire bi du ciow courant Macky Sall lañu soxla affaire bi lool xam nga ko yow mi ma koy laaj ñu tok fi ben groupe da ngay jéki jéki ñu jëlé fi président ben groupe ñew tok quelque temps ñu dugal ak président boobu waat créaat beneen groupe opposition ñëwaat ne sénégalais kaa lañ jëlewaat fi diw ba kañ ba kañ mais ñu dañu war a liggéey dëkk bi dañu war a liggéey te àdduna du hôtel nañ ko xam ndaw da ngay daj coono politique du dund du àdduna du tarixa du diine man politicien bi ma gën a xam ne kii politicien la ay na si politique muy wor politique terrain bukki la ku fa dem bu ñu la reyee yaa ko def ay xalaat yu bokkul la rek kenn ku nekk ni nga ko gisee ak ni ko xayna ñi bëgg nañ li ñi bëgg li mais réew nak moom ni muy doxé moy kenn ku nek euh nga jël li nga moom buñ jëlé kenn ku nek bu jëlé li nga mom rek jamm na ñoy ndax xayna ñi ñi nga xamante bi na ñoom dañuy bëgg leneen xayna loolu moom la mom la seen gis-gis tollal ki nga xamne mo nek ci bop bopp réew mi tamit na yërëm njabot gi rek ta xamne ku jité mom euh une fois nga am ñu lay ñu la bëgg am fo nga am ñu la bañ adina non lay doxé ndax moom bi muy bëgg réew mi tamit ah, dafa am nu mu doxale woon ba lu wóolu ko teg si bopp réew mi kon yërmande rek moo war ci moom ci njaboot gi yëpp quoi. ci wàllu ci seen wàllu liggéey est-ce que gàllankoor ñu leen li nga xam ne xew na fi situation bi. non économie réew mi moom dafa suuxee économie réew mi moom doxul même bu diggute nag manifestation bi sax économie réew mi moom dafa dafa daanu complètement doxul. waaw doxul doxul dara doxu si quoi. tey daal yéen ñi yéen a ngi xaar en tant que sénégalais gars yi gën ci am taxaw seetlu. non ñun moom wax dëgg yàlla ñu ngi def suñu liggéey moom ñu ngi ñu ngi wër di jaay amunoo gars benn problème ndax ñun suñu suñu jënd ak suñu jaay moom la respecté quoi bon ñoom ñoom benn problème bon na ñaan ñi bëgg leen nekk si politique bi ñoom ñu ngi si politique bi mais ñun moom ambulant bi moom ñu ngi ci ngi ci jënd ak jaay bi quoi di liggéey suñu liggéey normal waaw. ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yi sëñ bi. waaw kay jërëjëf waaw. merci beaucoup